الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد أغلق القادم ما ترجع بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على الحمد لله الحمد لله الحمد لله

dama wax ne. Baye dafa wax ne. jublu am na ci yëf yi. jublu na solo ci yëf yi. mooy li sëriñ wax ci yëf yi. mooy li Baye wax. yonent yàlla Ibrahima. yonent yàlla Ibrahima. te démb mooy tey. te xam ngeen kenn kat ne jëmbal tey. dafa ne inni zaahibun ila rabbi maa ngi jëm ci sama borom. dafa wax ne maa ngi jëm ci sama borom. ku ne xam na ne Ibrahima xam na ne yàlla saam. ku nekk xam na ne Ibrahima xam na ne saam jëm jëmoon yàlla nekkul saam rek. wala duhun ni dafa nekk saam bañ a nekk makka. wala duhun ne yàlla dafa nekk saam nga Ibrahima jëm bañ a nekk makka gi mu jógee. jublu ko rek moo tax mu ne maa ngi jëm ci yàlla. jublu gëm jublu rek ca la waxee ne maa ngi jëm ci sama borom. kon nag ku kon kay ku jëm ci wàllu yàlla. te xam nga ne ci wàllu yàlla nga jëm. te yow xam nga tënk na ci wàllu yàlla nga bon ci yàlla nga jëm. kon tey yow ci yàlla nga jëm. mulaaf mu njëkk bi dañ koy xasaf mu laafam ñaareel wutu ko. mulaaf mu njëkk dañ koy xasaf mu laafam ñaareel wutu ko. waliyullaahi. waliyullaahi. soo ci jëmee. boo ci jëmee. bindal baatam waliyu ba yaa ngi jëm ci Allah. bindal bindal baatam waliyu ba jëm ci Allah. kon nag maa ngi leen di ndokkeel. kon nag mi ngi leen di ndokkeel. maa ngi leen di wax ne. mi ngi leen di wax ne. bés yi ne. bés yi. jataay yi ne. jotaay mat di hittewoo bëri ci la. lu mat di hittewoo di ko baril ci dund gi la. ngëneel dana am di barab. ndax ngëneel fokk dangay xam di barab. xam ngeen ne julli ñaar raka ca masjidul haram moo gën julli ko ci geneen kër. xam ngeen ne julli ñaar raka ca masjidul haram moo gën nga jullee ko ci geneen kër. ko def. loolu ngëneel barab baa ko def. ngëneel dana am ci melo. ngëneel dina am ci melo. nemmeeku wàlliyu yàlla. nemmeeku wàlliyu yàlla. di borom xam-xam ci yàlla. di borom xam-xam ci yàlla. di kuutalal yàlla ci suuf. di kuutalal yàlla ci kaw suuf. liggéey jox ko ca. liggéey jox ko ci. mu soppandikoo ci yàlla. mu soppandikoo la ko ci yàlla. bokkut ak jox ko keneen ku koy soppandiku ci bànneex. bokkut ak nga jox ko keneen. mu di ko soppandikoo ci bànneexam. kon boobu nga neel dana aji ci melo. kon kay. nga neel dina aji ci melo. nga neel dana aji ci saa. ngëneel gënal xaditu saa waxtu wi sëriñ bi nekk ci minbar bi di xutba waxtu wi bàyyi nekkee ci minbar bi di xutba di ñaan fa aajo bokkut ak dëkk bi ci sa néeg nga di ko ñaan di ñaan fa aajo bokkut ak nga toog ci sa néeg di koy ñaanal sa bopp bon ngëneel dana aju ci saa kon kay ngëneel danay xaaju ci saa ngëneel dana aju ci jamono ngëneel dinay xaaju ci jamono xam ngeen ne topp yàlla ci weeru koor bokkut ak topp yàlla ci baraxlu xam ngeen ne topp yàlla ci weeru koor bokkut ak topp yàlla ci baraxu yëpp dajale ci jotaay bi yëpp nag dajale ci jotaay bi alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi leen di xamal ne mu ne mi ngi leen di xamal ne doomu aadama doomu aadama waxtu wéen bokk waxtu wéen bokk waxtu bi mu fekkee. waxtu bi mu fekkee. jamono bi mu fekkee. jamono bi mu fekkee. xarnu bi mu ànd. xarnu bi mu ànd. lépp lu mu ci defut faat na. lépp lu mu ci defut faat na ko. lépp lu mu yëgee ëllëg it amaana mu faat. lépp lu mu yëgee ëllëg it. amaana mu faat ci moom. loo mën tey defal tey rek. loo mën tey defal tey. boo fiy tudd borom xam-xam. boo fiy tudd borom xam-xam. ci xarnu bi nga nekk nga koy tudd. ci xarnu bi nga nekk ci koy tudd. soo fiy tuddee soo euh, wàllu. sooy tudd waliyu sooy tudd ko quran sooy tudd ko la quran sooy tudd loo mën a rek sooy tudd yépp loo mën a ci waxtu ni nga nekkee ci xarnu bi nga nekk rek nga ko mën ci waxtu ni nga nekk ci xarnu bi nga nekk ci ko mën xarnu bi nga xarnu bi nga su bu ni dajal na ka aji mati waxtu wa yàlla dajal na ka nga xam aji mati waxtu wa mën naa yab ku la man kon yow nga moos la man xat nit kuy ndax nit ki buñ ko dimbalee. dana yàpp ku ko mën. fekk mu yàpp ki ko mën. ku gis ci téere. ku gis ci téere. ku ànd ak wàllu ku ànd ak wàllu yu. tarbiyu fanweeri at. tarbiyu fanweeri at. soog a xam yàlla. soog a xam yàlla. genn ñu jox ko si kar. genn jaaxal ñu jox ko sikkar mu am ñetti fan àgg ci yàlla mu am ñetti fan àgg ci yàlla yab na kooka waaye ko mën yab na kooka te ñetti yàlla kat waaye moo ko mën waaye dañ ko dimbale waaye nag man ko yëf yi ku am loolu nag ku am loolu nag nit lam bëgg nit lam la ñuy xamee lam bëgg ca la ñuy xamee lam bëgg nit lam am nit ci lam am ca la ñuy xamee lam bëgg ca la ñuy xamee lam bëgg ku mënul lu may may ku mënul lu may fu mu wàcc toolam di la bayal fu mu wàcc toolam di la bayal su ne bëgg naa la su la waxee ne bëgg naa la war nga koo gëm kon war nga koo gëm su fekkee ne su fekkee ni xat ak xat xat ak xat ku ko mën a saxal baax nga ku ko mën a saxal baax nga waaye ku ko mën a def gënoo kenn waaye ku ko mën a def it gënoo kenn ku xamal sa xarit ku xamal sa xarit mu faral la fu ne mu faral la fu nekk boo xottee mu jóg boo ëppee mu jóg buñ la jàppee mu jóg suñ la jàppee mu jóg soo jaaxlee mu jóg soo jaaxlee mu jóg ëpp la daraja ëpp la daraja te boo amee soxla muy sa boo amee soxla muy sa ndaw ren ak déwén rek ren ak déwén rek mënuñu koo jubal mënoo koo jubal ci moom benn bés lu mooy benn bés ma ne benn bés wala benn bés mënoo koo xaaj ci nawet bi mënoo koo xaaj ci nawet bi bayal ko ko bayal ko ko man soo waxee ne dëgg dëgg na it gëm na mu ne moom boo waxee ne dëgg na it gëmut sa la bon nag kon ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi ci loolu ñu ngi ci loolu. dikk fii. dikk fii. maa ngi leen di ndokkeel. ñu ngi leen di ndokkeel. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. tey tam. tey tam. yàlla day. yàlla day. nett leen nañu ci alxuraan. nett leen nañu ci alxuraan. loo xam ne ñun suñu ko seetee sant yàlla. loo xam ne ñun bu ñu ko seetee sant yàlla. yonent yàlla Moussa. yonent yàlla Moussa. dafa wax xalir ne ko. dafa wax xalir ne ko. danaa la topp. dinaa la topp. ndax nga xamal ma ci li la yàlla xamal am njub. ndax nga xamal ma. ci li la yàlla xamal am njub. loolu la Moussa wax de. loolu la Moussa wax de. danaa la topp. dinaa la topp. ndax nga xamal ma ci li la yàlla xamal. ndax nga xamal ma ci li la yàlla xamal. am njub am njub. man de gaarul ma kenn. mu ne moom day. gaarul ma kenn kat. waaye xëpp jàngale. waaye xëpp jàngale. weddi tarbiya. weddi tarbiya. te ne sëriñ nga. te ne sëriñ nga. man dama bëgg naa xam nu mu demee. mu ne loolu day bëgg naa xam nu muy doon. bëgg naa xam nu mu demee. bëgg naa xam nu mu demee. kon nag. kon gannaaw ñun. gannaaw ñun. yàlla may nañu loolu. yàlla may nañu loolu. lii ñu wax ci jotaay bi. lii ñu wax ci jotaay bi. kenn mënu koo bind ci téere. kenn mënu koo bind ci téere. kenn mënu koo xam. kenn mënu koo xam. te ku ne leer na ci yow. te ku nekk mi ngi leer ci yow. te li mu leer leer. te li muy leer leer. ak li wax ji foor foor. ak li wax ji foor foor. ci jàpp xol yi. ci jàpp xol yi. formé leen. formé leen. bañ mën a dégg lu bàyyi ko ci yàlla. bañ mën a dégg lu bàyyi ko ci yàlla. ah kooku am na lu ko nit ñi gàddu. ah kooku dëgg dëgg xam na lu ko nit ñi war a gàddu. kooku am na lu ko nit ñi gàddu. kooku gëpp xam nga ko ni ñu war a jaddu sëriñ ak sëriñ dafay mën a former dafay mën a former former jëmm former jëmm ay xale fi yoo xam ne ay xale fi yoo xam ne dañ leen a former ci saayir dañ leen a former ci saayir barki dem maa ku dëkk Dakar barki dem mi ngi wax ak ku dëkk Dakar muy tudd benn xale maa xanaa misra la jànge muy tudd benn xale toppaa xanaa kooku demoon misra la jànge déedéet fii naka noonu. formé nañ ci xol mi xol yi. formé na ci xol yi. moom sëriñ bi. moom baay bi bañ mën a dégg wax ju bàyyi ko ca pays ba. luñ mën a dégg wax ju bàyyi ko ca pays ba. loolu lu for la loolu lu for la. loolu lu for la. waaye ndeysaan bi nga xam ne nit ñi dem nañ ba. waaye ndeysaan bi nga xam ne nit ñi dem nañ ba. ba koo wuuteeg bëgg-bëgg rek. ba koo xam ne wuute nga di yem bëgg. mu daal di mer. mu dal lay mere. loolu moo indi xay wi yëpp. loolu moo di li indi xay wi yëpp. maa ngi leen di ndokkeel yéen ñi ngeen xam ne. mi ngi leen di ndokkeel yéen ñi nga xam ne. da ngeen a ànd ak seen mbir di yàlla. da ngeen a ànd ak bàyyi ngir yàlla. bëgg ko ngir yàlla. bëgg ko ngir yàlla. di ko liggéeyal ngir yàlla. di ko liggéeyal ngir yàlla. di ko jox seen xalal ngir yàlla. di ko jox seen xalal ngir yàlla. maa ngi leen di gërëm. mi ngi leen di gërëm. maa ngi leen di ndokkeel. mi ngi leen di ndokkeel. maa ngi leen di sax di di leen wax ne. mi ngi sax man di leen wax ne. loolu waxtu wu ne fexe melu dolleeku. loolu waxtu wu ne na ngeen fexe melu woowu dolleeku. loolu rek mënul compter de. loolu rek kat nga compter ci yéen. yonent sallallahu alayhi wa sallam. yonent sallallahu alayhi wa sallam. te toujours démb mooy tey. te toujours kat démb mooy tey rek. samedi mën naa dikk tey. samedi mën naa dikk tey. indi leneen lu mooy lu bokkut ak la mu indi woon bu njëkk. indi leneen lu mooy lu bokkut ak la mu indi woon bu njëkk. waaye ba tey samedi la rek. waaye du tere kat samedi li moom samedi rek la. ña am na yonent sallallahu alayhi wa sallam. ña xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba tey ñoo siiw. ba tey ñoo siiw. ba tey ñoo siiw. ba tey ñoo siiw. ñoo jëriñoo yonent sallallahu alayhi wa sallam. ñoo jëriñoo it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. duut kat ñan doon fam maa nga fa ñu ko sédd. duut dañ daa fa mànd di di leen ko suddi dugu ni loo doon xam-xam yi de doon nañ ñoo ñoo doon xam-xam yi dugu ni ñoo doon xilaafa ba de doon nañ ñoo doon xilaafa ga ña doon indi xaalal la ñu di ko xoomalee ñeneen ñooñu ñoo tont ña doon indi xaalal jooju di ko xoomalee ñeneen ñooñu la ñoo tont ñoo ñoo doon yonent ñoo ñoo doon yonent ñooñu mooy yéen ñooñu nag mooy yéen daa leen di ndokkeel ñu leen di ndokkeel sëriñ bi ñu ngi lay gërëm bàyyi bàyyi de bàyyi mbay na na ñu ngi lay gërëm man lay ku ma jiite woon mu ne moom day ku ko jiite woon te jiite woon ci yàlla te jiite woo ko ci yàlla. su ma la waxut dara it dootuma doy. su la waxut dara it du la topp. waaye. waaye nag. koo jiite ci yàlla. koo jiite ci yàlla. te fexe ba mu xàmmee luy yàlla ak lu dul yàlla. nga fexe ba yow. de kooku. xàmmee lu yàlla ak lu dugub yàlla. xàmmee lu jëm ci yàlla ak lu jëmut ci yàlla. xàmmee jëf ji jëm ci yàlla ak lu jëmut ci yàlla. kooka. kooka daal. yaa ko moom wàll bu nekk. dëgg dëgg yaa ko moom wàll bu nekk. dëggal nag doomu aadama li. dëgg la nag doomu aadama la. suñ matoon. suñ matoon ni yow. ni yow nii kon duñ doy taalibe. kon duñ doy taalibe kat. waaye daal. waaye bëgg gi daal du am benn sikk. bëgg gi moom benn sikk dugg ci. bëgg yi gisul keneen itam. bëgg yi xëpp mënu nga gis keneen ku dugut yow. ñun gën a saaba yaa wax nit. ñoo nga it te melawal saaba yaa waxoon. sonn naa waat naa. ñun daal jóg nañu dikk nañu. bu ñu bakkanee yóbbu it. su fekkee ne bakkanee yóbbu itam. buñ teewoo fi rek. buñ taal bi di jaam yàlla yu sell. di jaam yàlla yu sell. di taalibe yu sell. di taalibe yu sell. loolu lañ yaakaar. loolu lañ yaakaar. li ñu àndal moom lañ gis si ñoom. li ñu àndal moom lañ gis si ñoom. taalibe yi moom lañ gis si ñoom. taalibe yi moom lañ gis si ñoom. yàlla na yàlla saxalal. yàlla na yàlla saxalal ñaar bi. yàlla na yàlla saxal te yàlla na saxalal. yàlla na yàlla saxal. te yàlla na yàlla saxalal. wax nga ci gàncaxi xol yi. wax nga ci gàncaxi xol yi. yaay taw bi. yow lii nag yaay taw. yaa gàncax gi. yaay gàncax gi. yaa bay. ci gàncax ak xel yi. yaay taw bi. yow lii moom yaay taw bi. yaa gàncax bi. yaay gàncax gi. yaa bay. yaay kii bay. yaa góob. yow rek laa góob. ñun lekk rek lañ farewoo. ñun lekk rek lañ farewoo. te dëgg dëgg loolu mooy dëgg dëgg dëgg loolu dëgg. ku tar bi yow xàgg ci yàlla. ku tar bi yow xàgg ci yàlla. ku tar bi yow xàgg ci yàlla. ku tar bi yow dara xàgg ci yàlla. téere boo xool bu doo jiwaayal maa ne nga teg borom. téere boo xool su doo doyalul maa ngi la nekkal ci ba def. lay ji marché lay ji li ñu wàcc nag. lu ji li ñu xelal di tëral nag. doo gis lu moom wax ci sa dëgg bu njëkk. doo gis lu may kooku bu waxee rek. tey sa dëgg bu njëkk yow passé na foofu. te yow mosul a dëppee ba koor. te yow mosul a dëppee ba koor. mosul a naa fi la. mosul naa fi la. loolu du dara. loolu du dara. dara la. dara la kay. yal na ma yàlla saxal. yal na ma yàlla saxal yow nii. ñun la bëggal. ñun ñii di la bëggal. ak man li ngay sama xol. ak man mbay mii di ñëw ci xolam. yal na ma yàlla sédd rek. yal na ko yàlla sédd. maa sédd boo ko sédd. yal na yàlla àggal suñu yal na yàlla xaggale ko liggéeyam yal na yàlla jox la lépp lu ñu rek yal na la yàlla jox lépp lu ñu rek yaa rabbi te yàlla bul ci kenn xëppale te yàlla bul ci kenn xëppale yaa rabbi yàlla bul dañ di xamuwaay yàlla bul dañ mukk di xamuwaay yàlla bu ci kenn xëppale taalibe yi yàlla bu ci kenn xëppale taalibe yi yàlla bul bul bul dañ di rawuwaay yàlla boo dañ di rawukaay bay yàlla ñu bokk ci ñaarale yàlla ñu bokk ci ñaarale yàlla bul dañ di jëbbuwaay yàlla boo dang bi dëgg lool. yàlla ñuy jëggal ñu ci yow. yàlla ñuy jëggal ñu ci yow bii. yàlla ngay xamukaay. yàlla ngay xamukaay. yàlla ñu xam bay xamal ñeneen. yàlla xam bay xamal ñeneen ci yow. yàlla ngay rawukaay. yal na nga raw kaay. yal na nga raw bay rawal jëman. yal na nga raw ci yow tey rawal jëman. yal na ngay jëggu kaay. yal na ngay jëggu kaay. yal na jëggal ñeneen. yal na jëggal ñeneen. lépp lu la waxee. lépp lu la waxee. yal na yàlla jëfante moom ca daal. yal na yàlla jëfante moom ca daal. yal na yàlla natt sa bëgg-bëgg ci lislaam. yal na yàlla matal sa bëgg-bëgg ci diine lislaam. taalibe yi. taalibe yi. maa ngi leen di sant. ñu ngi leen di sant. ngeen dolli seen ippe. ngeen dolli ippe yi. dolli liggéey bi. dolli liggéey bi. liggéey bi. liggéey bi. mën naa dolli. mën naa dolli. ippe ji mu tëju mën naa dolli. mën naa dolli ma ne. mu ne. wax dëgg wax doyatit. doy na ci ab taalibe. doy na ci taalibe. doy na ci ab gouverneur. doy na ci gouverneur. doy na ci ab ministère. doy na ci ministère. doy na ci ab député. doy na ci député. doy na ci commandant. doy na ci commandant. wax lu am. wax lu am. ak waxtu amal rek. ak wax loo xam ne day amal rek. waaye leneen nekkul. waaye leneen nekkul. dugg ci loola itam. dugg ci loola it. loolu laa leen di yëgal. loolu la leen di yëgal. ñu ngi leen di balu àq. ñu ngi leen di balu àq. te di leen ñaanal. te di leen ñaanal. ñaanal leen na. ñaanal leen ko. doo taalibe. doo taalibe. te bu ma àdduna yóbbu. te bu ko àdduna yóbbu. maa ngi leen koy ñaanal yéen. ñu leen koy ñaanal yéen itam. lu mën a xew nag. lu mën a xew nag. yàlla la bëgg. yàlla la bëgg. su ma bëggee lan ma yàlla. su ma bëggee lan ma yàlla nag. neexuma. neexut ko dafa doon adama rek. dafa doon adama rek. waaw waaw waaye yàlla rek la bëgg. wasalaam. بالأجفون والخوال كوكو وصام رامي أنام بالأجفون والخوال كوكو من لي برد جماع حق وايتها من لي بالتحويل حالي ليلي قصقو أمير وسليمان تارة والإسودا kii lim liggéey ci lislaam tey ab julit bu koy xas kii lim liggéey ci lislaam tey ab julit bu koy xas yow sam jullit des na kay dem tuubi xaatu mooy saas